sàccugum ci at mi ci ñi man daal ñu xam ñuy sàcc xale yi xamul lan rek lañ leen def man de war naa ko ci yàlla sama doom de ku ko yónni ci biir rek mooy jàppante naa ak ma 3500 salaam. ah fan na ngeen def. fi da ngeen def ak coono waay. dégg ma ñu ngi sant yàlla mbokki fan. ah ma ni fan. ma mbokki fan. maa ci kam. ma ni mbokki fan. maa ndànk. waaw Mau ngi ci Mau man mo maa ngi sant bokki fan. d'accord man. bokki fan bokki fan. waaye xam naa tax. maa ngi yo yo yo, yow su ma su ma waxee nanga ne yaa wax lu baax déggu ma moo ko baax may dégg yow yow déedéet waay nag. papa yow actif nga de. loolu soo dem fekk na ma actif da ngay fecc. waaye moto ñu ne sa sa sarangaas de. mais kii bi comment. kooku ba rek moto ni sa sarangaas ma sa morom oh. lan xam ma sa morom. koy koy ci koy ah waaw waaw wax nga dëgg nag wax nga dëgg samay verre dama ko fàtte kër ga dëgg wax nga dëgg daa ngelaw kay. sama nekk ci ngelaw dama la yow koy seet koy seet ci kër gi koy seet booy koy seet ki daanu dégg ma man la yaar la koy seet. nekk ci de. waaye duudu daal mi ngi waaye rama nekk fi moom. nekk moom mën a bàyyi samay doom nga leen seetee du duggal ci ñoom. rama nekk fi a laaj. rama nekk fi waaye duudoo fi ne duudu moo fi ne. waaw. maa ngi lay dégg man kay nu mel ne ma maa ngi lay papa mag bu amee jor may boppam. léegi loo bëgg a loo bëgg a wax foofu. ba ma sànqee la koy delloo de. Eh! saa saaga ma seet. yaa xam ne yéen a ma ko saa dama la delloo. yow duudoo fi ne bu ma génn ol na ko may ma nga siy jaaraat. oui duudoo fi ne doo bëgg du ma firi na eh eh papa papa mag bu demee ba ya, tim xale bu ndaw mu sànq ko bu fayoo bu mu mer yow so soo ma saaga lay dur ba nga bëgg nga ma xam yow du fi lay yow ba yaa papa boy xam eh. nga la ma bu la ma eh. ya, papa yow papa yi lan la yow papa la yow sa critique la yow lan la yow Wih. Mana bae mana meter teh ngenik video kan. Man man man teh bae man man teh bae bagus juan wala man wala man lala. Ya ulah lah. Yo yo yo yo man ga. Yo lah kan, kan. Man man teh bae bagus juan wala. Gis na yow. Mom la bëgg. Yan. Xawma ci dara kii dafa ñëw di ma seet si. Man lay seet. Seetu la. Te kii dama ko bëgg. yow yow yow yow da ngay fontu da nga na ma ma tam nga sayu ma megal na yow ki ki ki kanam ngi melni bu do préfecture bi merci baxna len la lay xamal yow mo neexu utal avocat

bu baax a baax xale bi kay nee na torop na torop torop torop wër na yàlla laa ilaha illa llah booy dafa ni wara wara may ma ni waaye papa la ki du muru muraake la li li li kay du dëgg ndike ne man tali mi sax waaye papa la yow yow al boo ko rek may ma rek booy sa papa actif yow da nga def maa ngi maa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi maa ngi fi ma ne booy suñu morom daa man